barkib xutba bi dégg yi rek ci suñuy nopp doy nanu daja des nag moom ma des wax lu ñu waxutoon dëgg la xanaa fàttali ak soññi rek loolu it mën naa bañ a gudd loolu di moo di rek ñu gën a góorgóorlu bu baax ci suñu diine góorgóorlu ci sàmmonteeg moom bu baax a baax suñu kem kàttan góorgóorlu itam sàmmonteeg sunu taalibe la cay sunu kem kàttan góorgóorlu itam lu baax sunu diggante ñun jaam ñi góorgóorlu bu baax ci sunu jëflante sunu jëflante yépp ñu ko sonne góorgóorlu ci bu baax ci ni mu gën a rafete jëfe makaarimul axlaaq yi di jëfe jikko yi wan gannaaw itam safaan yi kon diggante boobu rek góorgóorlu bu baax a baax sax ci sant sunu borom moom mi nu booleeg sëriñ bi sax ci sant sëriñ bi moom muy sunu léppi tey ëllëg dëkk sax dakk ci wéetal suñu borom ci lépp sax dakk ci doyloo sëriñ bi suñu digganteek moom ci lépp sax dakk nag ci góor góorgóorlu bu baax nag sàmmante suñu diine rek sàmmante suñu taalibe loolu rek mooy li ci am solo ñu ngi sant bu baax a baax bokk yi sant kilifa yi sant taalibe yépp sant bokk jullit yi taxawaay bi nga xam ne waxtu bu nekk ña nga ca muy taxaw tem ci diine ji taxaw temm ci taalibe gi ndax taalibe gi diine ak taalibe rek moo koy mottali moo koy rafetal ndax taalibe du lu loolu lépp looy def da ko def te yàlla tax muy bëgg mu mu mu jëf lu baax di daw lu bon te yàlla tax di wattandi bu baax safaan ba ci lépp lu xeet tere ak lépp loo xam ne ña rafetul lu góorgóorlu ci bu baax a baax di ko sàmmanteeg moom loolu rek mooy li ci am solo kon fàttali rek la ak soññe man góorgóorlu bu baax ci li ñu fi indi muy jàmm yàlla rek la ca dolli ko mooy liggéey sëriñ bi te yàlla tax dañ ci góorgóorlu bu baax loolu moo jikk moom ci la mooy suñu njëriñal tey ëllëg mooy suñu biyeeg suñu njëriñal biyeeg bitti ci la suñu mucc mucc nekk muccu tey nekk ci la muccu ëllëg nekk kon góor góorlu bu baax a baax a baax su yitte jépp nañ ko def ci jublu yàlla ndax loolu lépp mi ngi ci yàlla ne suñu yitte jépp ne yitte yàlla rek alhamdulilahi rabbil alamin sant bu baax ci tawfeex jure yi nga xam ne suñu borom defal na may def may nañu ko sëriñ bi sëriñ bi moom yittewoo sëriñ bi mu yittewoo yàlla rek jublu sëriñ bi mu jublu yàlla rek ndax bàyyiwul dara ci digg ma borom kon lépp lu mën a doon eh, noo ngi ñaan bu baax a baax gannaaw ba nu santee suñu boroom noo ko ñaan bu baax a baax a baax mu gën fab suñuy nas gën koo dénkal sëriñ Tuubaa sëriñ bi wommatal na boppam lu ci def lépp na kon ak rek la war a doon ak sax dàkk ci góorgóorlu suñu kem kàttan ñi ngi sant ñépp ñi ngi sant bokk yi kilifa yi bokki bi yépp bokki jullit yépp kilifa yi yépp ñoom sant ñépp di gërëm ñépp ndax taxawaay bi benn rek la noo ko bokk muy nekkal fii nekkal nekk nekk nekkal fi yàlla ni mu ci lim nu fi indee sax dàkk ci jaamu yàlla rek ak ak ak ak liggéey sëriñ bi ci lépp suñu lépp baax lu baax te yàlla tax loolu rek na nekk ci diggante boobu rek li ci lépp nag mu am ci rafet njot am ci xel mu dal gën ci gën am yaakaar loolu rek la jërë ngeen jëf ñu ngi sant bu baax a baax. di am mbégte bu baax a baax ci taxawaay yi xam nañ ni taxawaay yi yitte ji yëpp mooy sëriñ bi yittewoo sëriñ bi nag mooy yittewoo yàlla rek kon jërë geen jëf fa tabarakallah bismillah ngeen taal suñu ñaan amiin amiin